النار نعوذ بالله من النار أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من الم لنا إذا شئت سهلا أيها الإخوة الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ñu ngi màggal Allah subhanahu wa ta'ala di ko bàkk di ko gërëm di ñaan borom bi mu jéggal suñuy bàkkaar noonu koy ñaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak saxaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin xam ngeen ba tey ñoo ngi nekk ci awaaxiru saa darsi bi ñu génnee ñu ngi nekkoon ba tey ci adaabul qabr mooy mbugalu bàmmeel gisoon nañu ne nit ñëpp su yàlla dogalee ñu génn àdduna te loolu laa maxaala mi ngi ci yoon ndax nit ñaa ngi dem benn par benn kenn du des kenn du xaar ñun ñëpp dafa am waxtu wu ñuy xaar su waxtu woowu jotee dañuy wujj nit ñi di dem benn par benn nag ba nga xam ni dara defut lu dul shiraaru naas mooy ñi yées ci nit ñi te ñi yées ci nit ñi su àdduna di tukki seen kaw kenn du dem àjjana ñiy dégg wala buftani ñoom ñëpp waa safara la doon wala iyaasu billah yàlla bu ñu ko yàlla def suñu génnee àdduna borom bi yabal malaaka yi ñu toppatoo su ko defee la gisoon ci hadiisu Abu Hurayra ba daa feeñ muy danañu toog ñeent fukk quarante imma an yakuna shuhura aw ayyaaman dinañu toog ñeent fukk Abu Hurayra nii laa bi en tout cas moom dafa ne rek ñeent fukk léegi xamuñu ñeent fukki fan lay doon. lu ci ci doon daal huwa fi ilmin min indillah xam-xam boobu yàlla rek moom moo ko xam su ko defee bu ñeent fukk boobu matee nga xam ni nit xamu ko jinne xamu ko yonent xamu ko kon wàll yi mënu koo xam ndax jinne yi dee nañu nit ñi dee nañu ñu ngi ci biir suuf ku xës ba dugg biir suuf nag sa xam-xam jeex na sa pexe jeex na sa kàttan jeex na innahu laa yakuunu laka xawlun wala quwwa amatoo pexe amatoo kàttan amatoo xam-xam kon ñan ñoo fa def al kullu yaxdau lillah suufeel su ko defee dara dootul nekk ci kaw suuf du montagne du kër du garab fa tazallu dunya xaawiyatan ala urushiha adduna daal gaaw weeku ca fondation dara newatu fi asamaan dara nekk malaaka yi dee nañ lépp jeex na asamaan dara nekkatu fa ku dul borom bi subhanahu wa taala malaaka bi nga xam ni moo wal bufta bi ba ñëpp jóge fi moom it dafay jóge malaaka bi doon rey jóge fi kon la def mooy ci coobareem ndax mën na koo baamuwaat loolu tewut ko su ñeent fukk yooyu paasee borom bi subhanahu wa day yamalaat taw taw boobu di am nag ndax asamaan la wala suuf ci la taw bi jëm kooku yàlla nag moo xam en taw dana taw boobu dana fekk mbindeef yépp ci biir suuf laal xayawaan wala al xasaraat wala al jamaadaat lépp ñu ngi ci biir suuf léegi taw boobu bu ñëwee am na ñaari wax bi ci jiitu mooy taw la bu borom bi di taw imma ndox la wala du ndox kooku amul solo mais am na ci borom xam-xam yi ñu ne maniyu la taw bii doon am na ñenn ñu wax loolu taw boobu bu ñëwee daf fiy fekkaat suuf suuf si yàlla ñu ko fi jële woon mën na koo indiwaat ndax ci biir suuf la nit ñi nekk loolu dàquwante wala yawma tubaddalu al ardu ghayra ardu wassamaaw loolu bokkul kon borom bi bàyyi fi nit ñi ba ñeent fukk boobu man mu yebal taw su taw boobu ñëwee misaal bi muy wane mi ngi mel ni su baykat bi jiwoon dara day yàkkamte mu taw su tawee ñu toog ab diir suuf si day tàmbalee xaar gàncax gàncax gi tàmbalee génn foofu nag mbindeef yépp yépp ñu nekkoon ci kaw suuf dañuy sax kamaa yanbatul baql comme ni ñam bi di fànkee di sax noonu la nit di dekkee wax bàmmeel yi day tàmbali di fekk lan moo tax jëm yi ci nekkoon te sax yi lekkoon yax yi fi nekkoon suuf lekkoon ko mu fëlëx ba deretu si defetu fi loolu day dil si waat su dil si waatee foofu la nit di jotaat amul ndaw amul ñëpp ay yemaa mu def nag coobaree borom bi ci liir yi génnoon àdduna ak ñooña ndax noonu lañuy ñuy defaat loolu fii ilmillah kon en tout nit ñi denc waat na الدنيا كنت بصيرا في الدنيا لكنه في الحقيقة لم يكن يبصر ci dëgg dëgg ci àdduna gis woon dafa gumba woon lan moo tax ama an il xaq wa an il taa wa an il sunna koo xam ne dafa gumba woon ci dëgg gumba woon ci sunna gumba woon ci topp yonent bi topp borom ba kon kooku dafa gumba ci àddina loolu moo tax bu ñu posé borom bi question li ma xashartani al ama yàlla na koy tontu tontu bu gàtt lan la ko borom bi tontu ah kadalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadalika al yawma tunsa da nga fàtte woon suñuy aaya alquran ci àdduna suñu waxee alquran doo ko faale bu ñu waxee sunna doo ko faale suñu waxee lu baax doo ko faale sa nopp lu bon rek lay dëgg sooy bët lu bon rek lay xool sa loxo di la wax ni lëngu jigéen dafa xaraam di la wax ni luy jigéen dafa xaraam di la wax ni dem ci dansin dafa xaraam di la wax ni déglu lu bon dafa xaraam fa nasitaha nga fàtte ko bañ suñu waxee eh gars yi dañoo am jot rek loolu ngay wax borom bi ne wa kadalika al yawm li nga ma lebaloon ci àdduna moom laa lay fay tuum saa tey dañ lay fàtte subhaana man xalaqa samawaat wal ard yàlla bu ko yàlla na su ko defee tàmbalee ci kaw suuf suuf tàmbalee fet te nit ñëpp kenn ku nekk bi suuf nekkee lenn rek moo dul la suuf dul lekk ci yow muy ajabu dem moom la war a yamar kiit moo kóolu baaraam bii ñoo tolloo noonu la toll moo nekk ci digg nit lenn li kaw la jëm ba ci bopp lenn yu suuf la jëm ba ci tànk loolu rek la sax du lekk suuf du ko lekk foofu la yàlla di tàmbalee sosu doomu aadama loolu nag ci coobareem la ko defee waaye du tëlee ndax yàlla du def lenn ngir rëpeer da koo def ci coobareem waaye nekkul tëlee mbokk yi su ko defee nan la jëmm yi di meññee bay nekkiwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadis bu gudd bu imam buxaari muslim solo mu ne summa yumdilu llahu min asamaai maa fa yambutuuna bi ñam bi di génnee xam ngeen ku xam ñam bi doo góor ñam bi su ñam bi demee bay ñor fu ñu koy xamee xam nga ñam bi ci suuf la nekk borom toolu ñam bi nu muy xamee ne ñam bi bi ñor na mooy suuf si day tàmbalee xaar day def ay fisiir saa boo jëmbatee ñam bi garab bi moom kaw la jëm xob yi su demee ba ngay jékki di wër tool bi seen suuf si muy tàmbalee xaar ñu ngi lay tàggu ne la ñor nañ heure boobu ñam bi boo génn day mat ñam waaye bu suuf bi xarul boo laal ndox kese lay bis a ngi ñëw yow ma yunaahi munaat am na wootekat buy woote de muy kan muy malaaka mi yàlla sant mu wal bufta bi am na borom xam-xam yi ñu ne day wax ni yéen yàq yi fënaxoon yéen yàq yi sax lekkoon yéen jëmm yi amatul lewoon jóg wuy seen borom ëf su ko defee nag ruux yëpp mi ngi duggaat ci bufta jëlee mooy fa ida nuqira fi naaquur su ko jëlee ni biir ruux yëpp day génn benn bu ci nekk dellu fu mu jóge woon ci jëmmu doomu aadama bu ne jëpp ci jëmmu nit ki rek nit ki su xëy siggi te ñëpp ñuy siggandoo kii du siggi bàyyi geneen kenn siggi bàyyi geneen ku ne day nekk seen sa morom nekk ñu àndandoo nekk su ko defee nag ñëpp dañuy laajandoo benn laaj ñen ñooy laaj bi ñuy gën a tiit la ñuy wax mooy jàppale minal ajidaasi dekki nag jëm fan ila rabbihim ñu rànkalikoo toftaloo yansiluuna ila man ila rabbihim léegi nag yuuxoo noonu suuf day xat lool kenn du mën a toog noppalu ndax coono dootul am kenn du demee mu wiiru mënoo koo am ñëpp dañoo jaaxle ku jaaxle sa foofu yonent bi nee na borom bi day dellu si jant bi mu tiim nit ñi xadra miil la lu tolloog puso guddaayu puso noonu la jant bi tiimee nit ngeen xool jant bi nga xam ne ñun daf ñuy tiim ñu ñett ba sonn su fekkee ni dafa ñëw xadra miil nan lay mel ñu ne déedéet miil foofu mooy kilomètre ala kulli an bu mu ci mënti nga xam ni nit ñëpp dañuy taxaw benn bët la ñuy xoolandoo fenn la ñuy su ko defee nit ñëpp taxaw def benn sàppe suñu sàppee jinne yi wër leen ay yooni yoon ndax jinne yi ñoo leen nombre bu nit ñi toll jinne yi toll nañ ko juróom-ñaar fukkam wër leen ba mu mat wër am ñax malaaka ñu sàmme wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa borom bi dafa a yawma idin bi jahannam ñëpp tiit bu ñu tiitee jékki teen xool rek ñu seen jahannam yal nañ ci yàlla mos mbokk yi jahannam yonent bi nee na buy ñëw buy ñëw day dox day am bët dafa ay ndox dafa am ay tànk jahannam ci boppam yonent bi nee na dinañ ko chaîné soixante-dix mille chaînes soixante-dix mille chaînes la dix mille malaaka ñoo koy téye allahu akbar mbindeef bu toll noonu am na ci kaw suuf mbokk yi jahannama teel la soixante dix mille seen ñoo koy seede gauche droite benn seen bu nekk soixante dix mille malaaka ñoo koy téye wëññil ñaata malaaka la ñëw ñu mën a calcul mathématicien bi ñaata malaaka la ah 4 milliards. 900 millions allahu akbar 4 milliards 200 ñuy téye jahannam te li gën a doy waar yonent bi nee na bu ne jaay ndey yóbbu malaaka yi waruñu fekk ko mu ne jaay yi ñu yóbbu ko mu mel ni kooku daanu ñu lay nga ëpp nit ñi doole di dem gauche ou droite ba pare yonent bi nee mu am benn bopp bu génn nag ci jahannama ñu koy séen bopp boobu nag bopp jaan la jaan boo xam ne foofu rek lañ koy gisee. lan lay wax wukkiltu bi kulli jabbaarin anid wa bi man jaala maa allahi ilahan axar wa bil musawirin ñetti kàddu yi rek lay wax moom lay wax mu ñëw wukkiltu bi kulli jabbaarin anid wa bi man jaala maa allahi ilahan axar wa bil musawirin yàlla ñett la ma dénk ñett la ma dénk te il faut ma lekk leen ban ak ban bi kulli jabbaar nekk fi caay di def maa tey di def lu la neex foog ni àdduna bi yaa ko moom mooy kullu jabbaarun anid jabbaarun anid yadxulu fihi l muluk buur yi dañ ciy dugg borom kàddu yi dañ ciy dugg njiit yi dañ ciy dugg ñooñu mooy al jabbaarun anid jiite aw nit jaay leen doole forcé leen ne man la man la man la comme ni Cheikh Abdoul Hamid gis ki doon bi mu ne arsala almaliku malakan ila almaliki fa daxala qasra almalik fa mani almalik allahu akbar gis nga moo mën a wax arsala almaliku malakan ila qasri almalik fa axada ruuxa almalik fa mani almalik ay alladi arsala almalak <laughs> nee na buur bi yónni na malaaka bu dem pale buur jël buur ba kon kuy buur ka yónni aljabaarul anib nga diriger aw nit jaay leen doole te fal yàbb ñii ngay jàpp di rey ñii ngay tëj tur bu leen nga tuddee ko sa bopp même sambale si sax woowee nit dina nekk bañ a nekk nit nekk baax ni aussi koo xam ni fitnaa nit ñi ci kaw suuf jahannama nee na yow la soxla wukkiltu bi kulli jabbaarin anid jéng lool ba pare ko ne wa bi man jaala maa allahi ilahan axar képp ku wutal yàlla lenn wutal ko morom bokkaale ko moo xam xërëm la moo xam bant la moo xam jinne la yépp day dee dañuy torox wa xashaati l aswaatu lirrahman kenn du mën a wax tiit bul yi génn bët yi ne bukk nit bu tiitee ba bëtam ni bukk ba leen génn lu muy mën a wax ñépp wa xashaati l aswaatu lirrahman baat yépp torox lul na ñeel borom bi borom bi ne fala tasma illa hamsa ngelaw bu sew ba nag fii loolu da ngay dégg kenn du wax kenn du ne noppil kenn du ne kenn du leen téere bu amul foofu kay ñëpp ko naan bi lan moo tax ki ñu bind xam ñu daf ñoo war lu ñu jommal jahannama di daaneel ay malaaka di leen xëcc def noona te kat jahannama am na ay rakk am na rakk bu ñu naan am na rakk bu ñu naan am na rakk bu ñu naan te kenn ku nekk Fandañ la ñuy ñëwee foofu nag kéemaan la bi ko yonent bi nettalee yaa Aysa day xool ba ci yàlla ne yonent nii yàlla bindee kenn du sol yére yonent bi ne ko Aysa yawmal xiyaam nit tal na fa xool leneen lu dul awra nit tal na ko fa nit tal na fa leneen lu dul xool ay awra déedéet yawmal xiyaam kenn du fa awra ndax kenn ku nekk sa bët moom yaa ko teg ci àjjana yàlla nañ ko yàlla defal kii xool àjjana gisatul awra jàkkaarloog jahannama dootul gis awra kenn talatu ko yonent bi nee na ci misaal góor la góor ñi bi ñu leen dugalee néegi góor xarafal leen la docteur ba génne woon sànni ko day dikkaat góor yow man kay am ñi fa nekk ñëpp xaraf amatul xaraf day dee fii la yem ci kenn ku ne la docteur ba dangee woon teew day ñëwaat mooy ŋaamaan bi xam ngeen ŋaamaan la ŋaamaan bi ŋaamoon xolof mooy wax ŋaamaan ŋaamaan mooy kuy xarfal la mu defoon ba génn ko day ñëwaat mbokk yi bu loolu amee yonent bi ne borom bi ne kama bada mais kenn forcé wu ma ci ah dama ko def sama coobara rek donc mais kenn forcé wu ma kan moo ñemee taxaw ne ko miin kenn mbokk yi am na ñuy denc yàlla may leen ñu sol yére yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ ci yàlla boole waaye mbokk yi ñooñu mooy al anbiya wa siddiquun wa saalixuun wa shuhadaa wa xasuna ulaika rafiqa ku bëgg a sol yére yow qiyaam da nga muytu àdduna da nga fase àdduna wax la waa waxoon waxoon yaa dunya tallaqtuki talqatan laa rajaata fiiha yow àdduna fase naa la ñetti yoon amatul fay yi tàggoo rek mbokk yi su ko defee yonent yi danañ sol yére yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ma nee bërëb dekki man may njëkk a dekk ci kaw suuf allahu akbar man la yàlla njëkk ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yawma al-qiyaama waaye nee na su ma gis yeggee gestu xool yonent yàlla Muusa sama côté ma gis Yunus xaw ma nag man ak ñoom bu njëkk a denc léegi nag borom xam-xam bi ñu taw fi xadiis yooyu dañoo dellu ci wax bu njëkk ba rek wax bu njëkk mooy lan ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yawma al-qiyaama ñu ne sallallahu alayhi wa sallam su ko defee as-siddiquun dañuy sol yére as-saalihuun dañuy sol yére al atqiya dañuy sol yére ñi doon jaamu yàlla dañuy sol yére mbokk yi yéen kii sol yére yawmal qiyaam mooy kii sol yére taqwa wa libaasu taqwa zaalika xayr borom bi nee na yére ragal yàlla mooy yiw lan mooy yére ragal yàlla mooy yére yu ñu soloon yére yi ay xob yére la woon yu ñu soloon nga xam seen dara feeñut waaye keroog bi ñu defee bàkkaar la yére yee dem fa tafiqa yaxsifaani alayhima min waladil janna lan moo tax seen yére dem ndeke nit dina am yére ba pare def yaramu dem waaw ah, nit dina sol yére mel ni ku solul yére parce que sol yére ba pare di def jikkoy baax yi ba bàyyi sol yére ba pare di bàkkaar yow sol loo yére parce que libaasu taqwa mooy mais yére caay lay fekk ndax jikko ji caay-caay la jëf ji caay mooy yére ragal yàlla yére ragal kenn du la xool di sëkk tey suñu ndaw yi ni ñu mel baaxul suñuy jigéen ni ñu mel baaxul ndax seen col du am limaasu taqwa amu ci moo tax tey xale bu jigéen boo dajal da ngay sëkk xale bu góor boo dajal da ngay sëkk mbokk yi limaasu taqwa borom xam-xam yi nee nañu il faut mu jël juróom-ñett charte yi jigéen yërëm doog a nekk yërëm ragal yàlla yéen jigéen pour mu nekk libaatu taqwa il faut mu matal juróom-ñetti charte yi juróom-ñetti charte yi bi ci jiitu mooy istiaabu jamii badan mooy yaram bi yépp na ko yére bi taj yow jigéen yow laay waxal yére bi yàlla tuddee yére ragal yàlla mooy yére bi ngay sol na yaram bi yépp nëbbu ci yére bi illaa mastasniya lu dul la ñu ne lii mënta ñàkk feeñ ndax mënoo ko mooy lan xar kanam ak loxo ak jëm yére mënta nëbb jëm mënta nëbb kanam mënta nëbb loxo loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na màkk bu jóge fa jigéen ñi muuru wuñ mais bi ñëwee Madina ba borom bi santaane ko kër yonente bi la ko jëkkee yaa azwaajikum wa banaatikum kon yow borom kër fexeel ba sa njaboot di sol yërëb ragal yàlla léegi nag yërëb ragal yàlla boobu ñu ne charte bi njëkk mooy na mat yaramu ndaw si maanaam yërëb bi bu lenn ci yaramam feeñ lu dul dénkam ak xar kanamam ak li nga xamante ni bind bi la maanaam yaatuwaayu jëmm ji wala tuutiwaayu jëmm ji njoolaay ñoom jigéen ñi wala yubdiina ziinatahunna illaa maa dahara minhaa mun bu ñu génn seen taar la feeñ li forcé feeñ mooy xar ak ténku ak lenn ci jëmmam ñaareel bi mooy yërëm jigéen pour mu nekk da ngay yërëm ragal yàlla ñaareelu charte bi mooy an laa yakuna fi nafsihi bu mu nekk yére bu taaru bay yóbbu nit am na taar yoo xam ne bu feeñee ci yaa ni xool leen waaw ah, yow yaa ko kon jigéen dina sàmm loolu ci yéreem ak a naqaree nag waxal tey jigéen jigéen lu mu bëgg ku feeñ rek ku bëgg lu feeñ nag boo ko nee bul sol lu taaru boobu mu ne da ngeen bëgg a kaso man nangam fekk yàlla tëju la dara tijji kon taar boobu ñuy wax an laa yakuna zinatan fi nafsi lan moo tax yére boobu ngay sol bis bu taaroo bu jéggi naa rek mooy yow yaa ne xool leen ma seetaan nañ ñetteelu charte bi an yakuna fadfaatan an yakuna dayiqan wala an laa yakuna an yakuna safiqan wala yusuf ñetteelu charte bi mooy yére bi la góor di xottilee jabar jigéen bu dee xotti yére islam da ko ne yére bi balaa dara ubbil nii nga xool boo siilee ki la koy jaay rek neel baal bii du sa bos bii du yére ragal yàlla ah jafe de jafe de yére yi gaa yi defar léegi moom waxuma la sax loolu foo turne da ngay gis lépp kon nag jigéen bu bëggee dem yàlla yombut de ad dunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir kon yow jigéen booy xotti yére sa bët na la ko wan xoolal ci ginnaaw yére bi rek ni mu toll bindam te jigéen warta solo loolu jigéen warul sol yére rek nga xam jëmm mu toll parce que xeet bu nekk dafa am lu leen yàlla nattoo ci jigéen kon jigéen buy sol yére na sol lu yëmbax bu mu sol lu xat kon ñeenteelu sart bi mooy na yëmbax te bu mu xat bu mu xat kooku tailleur yi ñoom it war nañ ko bàyyi xel waaye def naa tailleur yi ñoom ñoom fu ko jigéen ñi soxlaa rek lañ ko fay dóoree ñoom daa am gaa yooyu <laughs> moom côté boobu jigéen day fitnaal góor day fitnaal góor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na la yow góor soo génnee ci mbedd seen ci jigéen lu la yéem dawal dellu sa kër ndax yaa nga bàyyi sa kër lu mel ni moom soo delloo sa kër faj fa sa aajo seytaane boobu dem seytaane boobu dem kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayyamaa rajulin raa min imraatin ma tujibuhu falyuqim ila ahlihi na dem ci soxnaam su demee ni soxnaam faj fa soxlaam ba pare fàtte kële juróomeel bi mooy an laa yakuna mubaxaran mu tayyaba yére bi jigéen bi sol juróomeelu sàrt bi buñ ko cuuraay bu ñu ko gongo bu ñu ko paaf ndax jigéen ñi mucc nañ ci ah moo tax yëf yi yomb yëf yi neexul ko neexul yomb yàlla ñu yàlla dimbale yàlla ñu yàlla may tawfiq yomb yombul ci borom kër gi yombul ci soxna si yombul ci société bi problème la jigéen ñi loo wax il faut ñu parfum te yaa Aysa nee na jigéen mooy ndox jigéen parfum mooy ndox su dara def lu dul biir këram biir néegam mu sotti koo parfum àdduna yi lu ko neex mais buy génn parfum ndox la war a yow jigéen buy génn sa kër yëkkati yére bi mu xeeñ tegal neen subhanallah fuutaat ko bu ko sol génn wala nga sol ko yem ci kër kon an laa yakuna mubaxara xam nga yonent bi dañoo xadis bu tiitlu nee na ayyama mraatin istahtarat fa xaraja nee na fa marrat ala qawmin li yajidu riihaha fa hiya daaniya yàlla ci yàlla bépp jigéen bii génn sotti parfum ci sa yére génn mu xeeñ beneen góor yonent bi nee na ak njaaloo kat nga laa ilaaha illallah njaaloo kat nga di nga gis jigéen boo xam ne sax du njaalookat bi mu def ko mais lan moo tax yonent bi ne njaalookat nga mooy yow yaay attiré yaa bëgg góor ñi xeeñtu la am na góor goo xam ne lu xeeñ bu nga xeeñee mu feebar kon yaa ko xëcc te njaalookat mooy def loolu kon jigéen war naa mooy tuddoo an laa yusbiha libaas rajul juróom benneel bi yére bi jigéen ji ñaw bu mu nuru yére góor ah ah loolu problème la xam nga léegi laa dégg ñu ne jigéen am na pantalon jigéen mais pantalon jigéen musul am déedéet pantalon jigéen amul jigéen sër la xam ak ci mais luñ ko defal pantalon rek dañ koo tubbil tuddee moom pantalon jigéen moom nag boo ko waxee ñu ne da ngaa tar da ngaa nangam da nga nii loolu nag mooy parce que an laa yushbiha libaasa rijal bu mu nuru yére góor bépp yére bu ñu xamoon ci cosaan góor di ko sol jigéen war ko tey xool leen jigéen ñi ñaw yi léegi dañuy ñaw lu grand boubou dañuy ñaw lu turki mbaxana góor ñi sax léegi dañ koy sol ñoom daa dem ba amatul luñ sol fi mu ne nii te loolu dem na ba yóbbaale suñu yenn mbokk yi parce que monde lu xew rek ñu ne dañ koy def juróom ñaara bi an laa yushbiha libaasal kaafira yére bi ñaw la boo xam ne aslan européen yi ñoo ko doon sol bu yére bu mel noonu maanaam man kon kon daanaka jigéen ñi daal ñu baal ñu suñu wax nag waxu jàngale la ak diine maanaam jigéen ji yére bu muy sol bu mu nuroog yére yéefar européen yi yére yi ñuy jigéen ñoom ñu di ko sol yow jigéenu jullit waroo koo ñaw man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum na ku nur nur la aw bokk juróom-ñetteel bi gën a jafe mooy an laa yakuna libaasa shubra boobu moo gën a jafe xam naa ni moom ñu ko mën ci jigéen ñi bëri yére bi muy sol bu mu nekk yére bu siiw jigéen lu siiw la bëgg ni yére boo moo nekk koo top nga xamante ne tey moo gën a moo gën a nekk koo top pour jigéen ñi charia nee na la yére pour sol boobu mu nekk yére bu siiw lan moo tax yonent bi nee na man labisa sawba shuhra maxaasu taqwa bu dee ci góor ñett yu mujj yi na ci mucc ci ñett sàrt yu mujj yi ci yére góor mooy war bu mu nekk bu xat yére góor war ta rawatina tubéy benn ñaareel bu mu nekk yaraax góor warul sol lu yaraax ñetteel bi bu mu nekk yére bu nuru yére yéefar ñett yi lañu teg ci góor ñeenteel bi bu mu romb dojaram fi sa njàpp di yem sa tubay bu mu ko paase yow tóor su ko paasee tuddatul libaasu taqwa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa romb benn waay boo xamante ni yéreem mi ngi buubu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa irfa idaarak fa inna allaha azza wa jal laa yuhibbu lmusbilin wala ko irfa idaarak fa inna allaha azza wa jalla yàlla buggut ñooñu ñëw na ci beneen riwaaya boo xam ni benn waaye la yonent bi dajeel bi yonent bi dajeel moom def ko ni irfa idaara yëkkatil sa yére waay waa ji ne ko yaa rasulullah inna fi rijli xamuusha sama tànk dafa am ay picc ay waga te bugguma mu feeñ yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko maa bi idaarika aqbax min maa bi saaqi fan la ma wax bi maa bi idaarika aqbaxu min maa bi saaqi gis nga li ci yére bi mbon mbon gi ci yére bi moo yéesu waga yi ci tànk bi waga yi ci tànk bi natt la yàlla dana koy baax yére bi romb dégg la lu dégg la yàlla dana cee nabina muhammad wa